acca jërë ngeen jëf euh, yéen suñu mbokku internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek ku nekk sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak te bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su ne ak yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal rek damay fas yéene ñu waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax te nag ma dalal sama benn Baay Faal di kilifa ñëw fas yéene waxtaan ci xam-xam ci bu baax a baax nga xam ne doonat ko ñu présenté ti waaye tey di seen jël benn émission ci biir site bi kooku la ñuy tuddee sëriñ Babacar mu sëriñ Saliou te nag euh, ponk bu ngeen yaakaar rek ci xam-xam dinañ ci waxtaan waaye xaaral ba ma ñëw rek ci programme bi laata may def dara kilifa gi damay bàyyi nga ne mbokk askan bi. asalaamaaleykum <clears throat> wa rahmatullah wa 21 people inna waliyallahu lasi nasala alkitab waxu wala saalina hasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arsil hasim maa ngi nuyu mbokki réew mi ak mbokki bitim réew nuyu kilifa bi ak kilifa aada yi ñëpp boole naa leen ci nuyu bi muy asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ma seex ñëwal ndax euh, sama yaram tàng na dinañ def émission ni ma gis réew mi muy doxee li ma ci gis doy doy ma xel xam naa euh, dinaa yëngal tey niñ ko waxee saa su nekk révélation bu nekk nag na ngeen ko fi xaar jëmale ko ci président Ousmane Sonko rawatina dossier bi ni muy doxee am na lu mu bëgg wax ci président Ousmane Sonko ba ci procureur bi nga xam ne moo di Euh, Basirou Gueye dina ci waxtaan waaye kii di Mimi itam nga xam ne nee na troisième mandat moom déedéet dañ koy aaye sa waay li mu gis lépp bëgg ko wax tey tey rek ngeen di dégg tey ci xam-xam atia euh, daam fa ma bëggoon ñu tàmbalee mu di listixaar bi nga xam ne maa ngi ko waxtaanee fu nekk nga ne ma tey rek laay jàngal nit ñi listixaar waaye tey ma jàng leen xam-xam ñu del si waat foofu. waaw kay euh, Serigne Cheikh listixaar dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci jamono bi ñu toll nii ndax nee naa leen lépp lu waay di dugg ci bii jamono. bala nga ca dugg xaarlu ba pare leer leerlu ba pare ndax tey nit dina dugg ci dina jënd oto dugg ci tey balaa bis bi di dellu si mu agsi ci oto ba paan fekk jigu ko nit dina takk soxna soxna sa bala moo mat at seeba yàqu wala coolu na kur nit dina takk soxna ay mbiram tëju ràpp la mu amoon dootu ko amati lu mu amu dootul ko amati loolu li koy waral mooy ñàkk listixaar ñàkk xollu ba xam sëy bi gën na wala gënul lii may dugg gën na ci ban wala gënul ci man mhm. nee la nit sax bala ngaa sanc kër wala nga di ko nga di ko tabax walla nga di fa def dara balaa balaa booba da ngaa war a xool kër gi ba xam lu fi ne wala yow sa dëkkuwaay la wala déet sa jëmuwaay la wala déet mhm. jig na la wala jigu la dama ni feeñu dëkk sunu dëkk cosaan yi fas sax boo ko jëndee dañ naan la fas yi bu ko jaay fas wi boo ko toroxal fas wii nanga ko fonk noonu mu amee ci yooyu yëpp ni la amee ci bépp mbir mu doomu aadama di dugg moo tax dama ni lépp lu waaye di duggati si leer la ko ba mu leer door caa dugg moo gën a wóor maa ngi koy conseil ñëpp nag ok kooku mooy Serigne Babacar mu Serigne Saliou damay dox ba léegi yaatal ni ma koy waxee dégg naa nag sa jaaro am na lu ci nekk damay dégg ñu koy waxtaane moom laa bëgg ñu waxtaane njëriñam lan la waaw mbirum jaaro lu am solo la xam te ak ñi ko bëgg ñi ko bëgg te amuñu ko yaa ngi dégg jaaro nag dafa wuute am na ci ñoo xamante ni dañuy seet sarawxaan mhm. ba xam dëppoo na ak jaaro bi ñu lay jox bu ma ne la jaaro bi nag mooy peru jaara bi moo tax ñuy wax waaye nee naa la mhm. jaaro ñun suñu jaaro dañ koy nàndal dañ koy nàndal de jaaroo ci mhm. façon bu ñu lañ koy liggéey mën nan ko liggéey ci xam-xam bu ñuul mën nañ koo liggéey ci beneen anam waaye buñ xoolee ba xam ne mbir mii moo war a doxal say mbir ci jaaro bi ñu def ko ci jaaro bi jaaro bi nee naa leen ubbeeku la ak bayre waaye nag li may wax Sénégal mooy jaaro bi moom ku amul xaalis jarul nga jarul nga ma koy laaj ndax la nekk moo am njëriñ laa bëri ndax la ca nekk ndax mbiru kilifa la bi ñu ma mayee ndigal ma di ko joxe léegi yàggul wallaay la xasim kon ñu yor te jël sa jaaro déggoo li ma la wax jaaro bi bayre la ak kaaraange jaaro boo xam ne boo ko takkoon tey bu la nit doon def lu bon dangay ngay sentir jaaro bi ni muy def ci sa yaram loolu yaakaar naa ah ñu yor jaaro bari nañ waaye boobu yombul de te nee naa la lépp loo dugg lu ne da nga koy réussir yaa ngi dégg kon ñun suñ jaaro dañu koy nandal dañu koy xool yaa ngi dégg buñ la ko joxee fu ñu na la dugal dugal lu ñu la defal defal lu ñu la bàyyil bàyyil dégg nga noonu la demee ace ma ñëw ci mbiram jalang ñenn ñi doo waxee ñu ne baax na ñii ne baaxut waaye ci mbiram euh, ci fétiche laa bëgg a wax sax waaye dégg naa yaa ngi yëngatu ci jalang di ci def mbir yu yéeme yoo xamante ne ku bëgg yenn résultat yi ci yenn ñaan yi see boo mu seet si sëñ Babacar. waaw euh, jalan dafa am solo. Mm-hmm. lépp ci mbiru maam yi la. leen yàlla suñ borom. lay def ci nit. lu ne la def wàccee. ci àdduna lépp ndax doomu aadama yi lii yëpp bi ko mag ñi di xalaat suñ borom moo leen booleel ay jinne wala ay mu ne leen def leen nii ak nii bu fekkoon ne lu yàlla namul la du ko wàcce dégg nga waaye mbirum jalan ak fétis daanaka benn la différence bi bariwul yaa ngi dégg waaye man nag dama cee yor yenn xeeti liggéey su ma xoolee sa mbir gis na yow sa bii bu ma la ci alquran dafay yéex wala du la jàpp yaa ngi dégg damay dem ak yow ci fetis dégg nga nee naa la bu fekkee ne maanaam fétis mooy doxal say mbir lépp lu ma la jox lu su ma ne la demal demal su ma ne la bàyyil bàyyil ndax man samay mbir lépp lu may defar dafay leer naññe min nit ñi moom min nan min nan sama liggéey moom macha allah wax dëgg yàlla waaye fétis maanaam mbirum jalang mooy fétis jalang moo fétis benn la. mbiram lu gaaw la te def gis la man maa leen ko wax lu problème rëy rëy rëy rëy am na ci loo xam ne wax ko sax ci télé dafa dafa dafa garaaw lu problème rëy rëy rëy laa la wax su ma jàkkaarloog fétis yi ba wax ñoom li may wax ak ñoom dama la demal laa lay wax ku la laal dinaa waaw jaar ak yow foo xam ne mooy loolu waaw en tout cas daal su ma la xoolee xam ne yow sa liggéey dafa laaj jalan dinaa la liggéeyal ci jalan su ma xoolee xam ne yow sa liggéey loolu doxalu ko li ma li ma la war a liggéeyal alxuraan moo koy doxal kaay ma xamal leen nag am na ci ñoo xam ne seeni rawxaan ah. boo leen doon liggéeyal alxuraan rawxaan am na ci rawaan yoo xam ne ñoo xam ne da nga leen di nëkk seen rawxaan di jàng alxuraan ji ngay jàng lu garaaw laa lay wax kooku ko mën a liggéeyal ci alxuraan mu danga koy indil lu ko jaaxal ndax nee naa la kii yenu bërigo suuf di daw ak moom mboo ko yenee paanu ndox moom xanaa yana ne ko yow rawal yaa ngi dégg loolu moo nekk fii ci àdduna. nit ku ne dafa am luy doxal seen mbir xanaa xamoo am na ci ñoo xam ne bu njaala woon tey fii semaine weer bi yëpp dootoon am dara. am na ci ñoo xam ne rawxaan bu saay-saay la ñor bu buñ defee dara tey buñ defee lu loolu naka sudul noonu day mel ni dañ leen koy xëpp xéwali yooyu yëpp ay jinj la loolu du ma ci sori ok. kon mu ngoog acca jërëjëf euh, sëriñ euh, Babacar sëriñ mu sëriñ Saliou jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu du doon ko naqaree jot ndax ni mu ko wax saa su nekk numéro yi ñu ngi leen affiche suuf barre d'écran bi yéen contacté leen ko rek dina jëflanteeg yéen ba seen xool sedd guy acca dama ñëw ci samp nit waaw samp niñ koy waxtaanee dégg naa yaa ngi ci dem mbir yu yéeme de. waaw samp moom lu am solo la ndax nee naa la entreprise hmm. boo ko yoree te sampoo ko bis dina ñëw mu nërmeelu ci suuf bu fekkee dangaa bëgg jiite dara. te sampuloo sa bopp. bis dina ñëw nit ñëw féete la kaw foqati ko force te doo ci man dara. dégg ñaanu kilifa lu am solo la. ñaanu waajur lu am solo la waaye nit ñi dañuy jéggi yooyu yëpp ñëw dal ci sa kaw te kenn du ci man dara. yaa ngi dégg. ndax am na ci ñoo xam xamante ni bala kër seen waajur dalee na ñaan lan moo tax bu ñëwee xëy ñëw indi tànk buy metti wala tànk bu damm wala oto bu yaay de lii moom kooka di jaar ak yow foofu moo ëpp doole yooyu yëpp yaa ngi dégg moo tax samp lu am solo la man nag samp ci ñaar laa koy def. samp nit ma lay samp moo ma jalan bi mu d'accord ne kii mën naa ci moom dara yaa ngi dégg danaan dama lay wax carrément li mu laaj li la jalan bi laaj nga jox ma ko ma liggéey ko samp la teg xolal kenn man ci yow dara. jalan moo lay laaj li ngay def jalan bi ci boppam moo lay wax li nga xel di def jalan bi day wax day wax ak man nee naa la mbirum jalan du ay caaxaan ni ko yor ci dëkk bi ñu bëri waaw doy na waar waaye yooyu yëpp jarul sori waaye daal samp mën naa dem ci digg àll bi samp la foo xamante ni kenn du ci man dara ndax man fi ma dëkk moom lu ma fa bëgg a def def ko fa ndax sama wéyju dafa liggéey ba ba am ngërëm yu bari laq xam-xam yu bari yoo xamante ni tey mën naa ne mën nañ ci leeral lu dul jeex loo xamante ni xajul sax ci benn émission yaa ngi dégg. beneen bi ci des samp bi ci géej lañ koy yóbbu bu ñu demee ci géej gi ba def li ñuy def ba ñëw ñëwaat indi indi indi indi bagage yi nga xam ne moom lañ wax moom lañ yóbbuwoon ci géej gi sarax la ñuy def ak yenn mbir yoo xamante ni géej gi lañ koy sànni géej kenn mënu koo jeexal. boo boo ko boo ko bëggoon a naan xam wala nga dajale Sénégal wala àdduna yëpp ne la naanal leen ba géej gi te dana naan ba sonn de waaye duñ ko jeexal looloo tax nag. mbirum samp dama koy def ci xam-xam bu ñuul. Mhm. xam bu ñuul mooy jalang samp la waxtaan ak jalan ba mu juboo ba mu wax ma kii léegi lii moo nekk ci moom mhm. boo ko dindiwul mënoo koo samp am na ci ñoo xam ne li nekk ci ñoom tàkk dañul duñu am duñ seen seen mbir du sori. yaa ngi dégg xanaa xamoo nit dina nekk ci buumu sëy yaa ngi dégg mhm. problème yi ci nit ki dafa am lu nekk ci yaram lu mu war a dañ loo xamante ni feeg dañul ci moom yaa ngi dégg. du ko am. lan mooy doon gàllankoor yooyu. def def da koy waral. yaa ngi dégg nit ki balaa nga koo samp da ngay raxas yaram ba mu set. yaa ngi dégg ndax des fois da ngay jéem a liggéeyal nit am lu présenté wu ne la lii maay borom. ne la kii maa teg mu loxo ci ay mbiram. maa teg sama loxo ci ay mbiram. nga naxtaan ak moom naxtaan ak moom génne liggéey ngay ba juboo ak rawxaan bi. jalaan bi may la ndigal nga liggéeyal ko nga liggéeyal ko ay mbiram tàkk ba faw kenn mënu ci dara. waaw dégg naa mbirum kaaraange junj nga ci sànq ku ko bëgg sax euh, mën na laa seet si ndax yaa ngi ci def mbir yu yéeme rawatina dëkk bi gis nga ni mu pëcc xooyee euh, metti na daal. Mm-hmm. waaw kaaraange lu am solo la. lu am solo la ci jamono bi ñu toll nii. mu yii ñu toll nii ku ci amul kaaraange ah waxuma la doo sori de waaye de noppalu de doo ko def maanaam toog di noppalu di di di dund di dund lu neex nga di ko yëg mm-hmm. doo ko def. ndax fi mu toll nii yàqu-yàqute yi day dafa bëri yàqute jamono yi dafa bëri kaaraange nee naa leen sëy sax boo ci dugg danga koy ñag ñag mooy lan mooy kaaraange kaaraange mooy ñagu doom sax ci jamono bii boo ko gis boo ko amee gis na kii ku la nar a jariñ la yow yaa ngi dégg danga ko war a aar denc lu ko ba nga xamante ni bu ëllëgee mu man laa jariñ nit dina màgg nit dina nekk xale coow bari ci moom lool nga gént guddi ñu walla ci ay mbir lool yow mi waajur yi xool gis na sa doom ji am na lu ma la wala jariñ ëllëg yaa ngi dégg nga jékki-jékki mu mel ni dañoo rocce bayre boobu ci moom muy xuloo ko xeex ak nit ñi di ko bañ di ko kii fekk danga ko koo aarul sëy yu bari di yàqu ci ji jamono mm-hmm. ñàkk kaaraange dong moo ko waral waajur yi liñ man ak kilifa yi mooy dagganal ko ci farata si yàlla ak sunna si Muhammad ñaan yàlla mm-hmm. waaye leen li ci des yaa koy ñagal sa bopp mooy maanaam lekkati kese naxul bay mooy maanaam boo boo boo yoroon géttug nag yeewoo leen kenn ku ci ne rasaloo koog buum bis <laughs> dina ñëw da nga naan ana sama nag yi fu mu aw moo tax jamono bii ku fi bëgg lu baax wala boog say mbir di dem te kenn du ci man dara wutal kaaraange kaaraange nag ci ñaar laa koy def bi ci des maa koy yoral sama bopp di ko doxal saa bu ma xëyee ne la génnal sarax nangam génn ko saa bu ma ne lee defal nangam defal nangam saa mun mu ne la moytul nangam moytul nangam su ma yoree sa kaaraange lépp luy ñëw ci yow dañ ma koy gis yaa ngi dégg su ma yoree sa kaaraange lépp luy ñëw ci yow dama koy gis yaa ngi dégg leneen li ci des ay ay ndombal ak yooyu yu ñuy takk waaye li ci gën a amal solo ñun ñu yoral la ko xanaa kila la ki la yoral say mbir assuré la ko kay bu na la doxalal doxalal kaaraange loolu dong moo ci nekk. kon acca bàyyi leen ak euh, sama baay faal bi mu yoral leen li nga xam ne bëgg ngeen ko mu jëm ci mbiram xam-xam mu leen koy teel ba ci kurus acca dama ñëw ci rab donte sëriñ si ku ci waxtaan day dugg ci rab rab nag sonal ngeen ko de yow laa ci wax baay faal. waaw rab de ko ñeme bariwul de <clears throat> ñi ko mën boog. Hmm. gars yi am nañ fitu wax rek waaye duñ ko laal ndax rab dafa dafa garaaw dafa doy waar. ndax lan noonu. rab dafa am ay xeet yu bari yu bokkul. bi ci njëkk mooy. rawxaan bi nga xam ne dafa laa topp. rawxaan bu la toppee. nit mën na koo tàqaleeg yow. mais bi nga xam ne danga nga koo judduwaale. boobu nee da ngay naxtaan ak moom. ba du la mën a yàqal yow tamit doo ko yàq. yaa ngi dégg. beneen bi ci des day dab nit ki. bu la dabee li tax di dab nit mooy day gis nit ki am na leer. yàlla suñu borom may na ko dara nar naa doon dara ci dëkk bi. sa jëmm ji ba mu fees tëb. moo xanaa xamoo da nga gis jigéen boo xam ne day sëy ma 40 di tëdd di tuur ndox barki Seexul Xaddim billaahi wallaahi toog am na jigéen boo xam ne nii taawam bu jigéen am na 18 ans wallaahi naa sim ba da doon gént di di di di di tuur ndox man ginnaaw yàlla ak yeneen bi man mii maa ko tàggaleeg moom ba mu amaat doom boobu amul matul am doom rab dafa garaaw rab nee naa la jigéen bu mu nekk ci yow mm. bu dee bu am doole bi dëgg mm. day dox ci sa diggante ak sa borom kër mooy góor ñi nga xam ne buñ tiimee seen seen soxna rek dañuy mel ni ku nekkatul góor des fois rawaan bi moo koy def. mën na ba nga néew kàttan wala. rawaan bi moo lay néewloo kàttan mooy téye sa awra yaa ngi dégg ndax jigéen dina tëdd ak borom këram bokk ak lal bu ñuy fanaan di gént di say keneen loolu duñ ko wax loolu jigéen du la ko wax loolu xanaa ñun ñii la ñu koy wax lu mu ci mën di doon incha allahu rabbi lu rab bari doole bari doole bu mu doon kër kër yi dama naa leen tekki leen tekki leen ko moo ñëw ma jëflante moom loolu gone du ko def rawaxaan dafay am luy nekk ci yow lu ko ëpp doole loo xam ne nii bu jàmmarloo yow ay ay laafam dafay damu ñun loolu lanu suñu borom defal duñ ko ndamoo nag bul tëkku rawaxaan naxtaanal ak moom ba am li nga bëgg ci moom ñu bëree bëree bëri buñ na la dama lay fajal rab dañ koy calmer da ngay gis koo xam ne day faju ba sonn faju naa faju ba sonn day jékki-jékki rek affaire bi ñëwaat li koy waral mooy danga naan dama lay tàqaleeg rawxaan bi mënoo koo tàqaleeg moom dangay ngay naxtaan rawxaan bi ba ne ko nekk jàpp nga xam li mu bëgg nga defal ko ko yaa ngi dégg mu may ko jàmm nga jël gàllaaj yi nga koy jox yoo xam ne rawxaan bi dootu ko mënal dara te naan ko del saraxe bis sàngam nangam ak nangam bu ko defee rawxaan bi day doxal yow ngay doxal du la yàqal yow tamit du doo ko yàqal loolu moo am solo buñ nax nit ñi na leen wax liy dëgg ji man réalité lay indi yaa ngi dégg mm. réalité lay indi mbiru rawxaan dafa sensible dafa doy waar rawxaan day tas kër xanaa kam am na ci famille boo xamante ni tey boo leen fekkee ñu toog boo ci laalee kenn ñëpp mer seen raw dañoo bokki bagage te tey fi mu toll ni moo la la def leen nangam rek mm-hmm. ñu def ko kër ga jàmm dafay am barke Seexul Xaadim Mbàkke mm-hmm. da nga gis mm-hmm. koo xamante ni yaa ngi dégg ñoo xam ne kër yoo xamante ni kër gi kenn mënu fa am jàmm coow yi dafa am xeex yeeg yooyu yëpp dafa am fekk rawaan ba nekk ci biir mooy jaxase famille waaye daal lu mu ci mën di doon la laa bu déggante ma teg la ci yoon kenn du gaañu incha allah rabbi te jàmm rek mooy acca jërëjëf sëriñ euh, Babacar mu sëriñ Saliou jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu acca li nga wax ci suuf laa bëgg ko ndax damaa ñëw nga ne ma li gis ci réew président Ousmane Sonko ak Adji bi doon na loo xam ne lu doy waar la ndax ñaa ngi naan na wuy ji procès bi dina am ak du am waaye su demut dam gis ko coow fi nga xam ne nar na fi am li nga gis lan la lan nga gis ci politique Sénégal bi. waaw li ñu gis li ñu bi lu yéeme la loo xamante ni buñ ko waxee Ousmane mii nday mbilli gi bu ko déggee xaa hmm. dina sëñ lan la yaa ngi dégg hmm. Ousmane Sonko fi mu toll nii may wax yow yàlla suñ borom may na ko de may na ko tàggatal na ko doomu aadama yi bañ bëgg ko waaye li mu war a yore réew mi hmm. li nga xam ne moom mooy mooy moo moom réew mi moom mu war cee teg loxoom loolu gën a tax tegagul loxo loolu la tegagul loxo te fii may wax yow ni sonal nañ ko lool ku ne la Ousmane wér na ci ji jamono da lay waxu la dëgg. loolu man maa am fi wax ko man Babacar Mbaye. Ah, daa loo gis. dañu ko fi mu toll nii jekku nañ ko xeet waaye jekku boo xam ne te ñoo ngi ci kawam bu baax a baax a baax. te wallaahi alxasim ndaw lu ci amul kaaraange. deltul ginnaaw ci mbirum projet bi ak coow yi. wuy bi na wuy ji wala li nga gis baaxut. wuy bi mën naa nekk lu mën a ne la yaa ngi dégg ah waaye fii mu toll nii hmm. ah xam naa ne moom bu nee tegg tànkam rek moom hmm. fii mu toll nii bu deltuwul ginnaaw tuuti rek hmm. moom mbir dina xew man xew barke Cheikhul Khadim fii mu toll nii fii mu nekk nii moom Ousmane képp ku koy ku may dégg te jege ko na nga ko jottali kàddu yi bu teggiwul tànkam ci ji jamono bu dugg ñuy rëq ndigam man maa leen wax lool. tëj ko buy dugg ñiy raq ndigam man maa leen wax loolu ñoo ngi ci kawam bu baax a baax te kilifa yu bëree bëri ci réew mi mii lañ def ak Macky Sall kenn mënu ci dara kilifa diini yu bëree bëri ah. ci biir dëkk bi ah nii lañ def ak Macky Sall kooku beneen mbir la moo tax ma ne la moom na deltu ginnaaw. di jàppale Macky boycotté président Ousmane Sonko. déggoo li ma la wax déggoo li ma la wax déggoo li ma la wax xanaa dama ne la fii mu toll nii na deltu ginnaaw dem defaru jiwaat. te xam ni réew dafa am loo xamante ni lu ko yor la yaa ngi dégg mm-hmm. li nga xam ne moo koy jox réew mi la tegagul loxo waaye moom na doomu aadama yi moom na moom na moom na doomu aadama yi ruu yëpp bëgg nañ ko. gis nga ku ma doon président. li koy jox réew mi la tegagul ci loxoom man maa leen wax loolu waaw. troisième bi ñuy bañ. troisième mandat bi buñ ko valider ñu xam bis bu ñu ko valider laa la kenn mënul tee ngóor si toogaat ci réew mi man maa leen wax loolu ndax fii mu toll nii daa teg loxoom ci réew mi waxuma ko ngir dara de kenn woowu ma koo xamante ni ku may jéem a wax la ci wàllu woowu dama damay wax li ma gis yaa ngi dégg damay wax li ma gis nit ñi nag boo waxee ñu ne dañ ko léeg dañ ko laa kenn geruma kenn joxuma lu ma suukaree màdd laa wax waaye dama ne fii mu toll nii waa daa teg loxoom ci réew mi. nit kaa moom Ousmane mii. Hmm. bu yëngalee lu lu garaaw dina xew loo xamante ni ñëpp ci teg seen bët dinañ waxoon naa ko. ñu bala waa li may tàggatoo lenn la. ngi ñaanal waa réew mi jàmm xew ci. te conseil tey wax waa dëkk bi. coow dina jógee ci biir kër yi biir kër yi coow dina ci am ay tuurante deret dina am. dinga gis koo xam ne ñu bokk ndey ak baay wala ñu bokk baay di jamante ay paaka di tuurante deret li ma leen ci digal mooy na ngeen jënd ay glace bàyyi ko ci biir kër yi ba mu seey yi ci des ngeen ngeen def ko ci mbedd yi mu seey ba jeex lu ko moyil deret dina tuuru te ci biir kër yi lay tuuroo waaw kay loolu dong la maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkk ci yéen ngeen ñaanal ma gudd fan nag man moom bu ma guddee fan dina baax ci yéen de waaw kay wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Mouhamadul Mountakha Bassirou Mbacké ay wa nasruhu sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko lool noonu laay nuyooyu doomam ju baax jooju Cheikh Mouhamed Cheikh Babacar Mbacke mu këbëroo di sunu yaakaar tey a ëllëg Mbacke bala waaye juru Cheikh Mamadou Mountakha mu ndaw mi nga xam ne mu nga féetewoo ca kër ba man ci waa kër sëñ Basiru yi laa yaakaar tamit maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal moo moom moo Modou Mbenda Fall sunu borom yàggal ko fi te wéral ko naal yi mun naa la liggéeyal Cheikh Ibrahima Cheikh Ahmadou Bamba sunu borom may ko wér gi ak kattan gum ko defee sëriñ Cheikh Ahmadou Cheikh Babacar Mbacke ñoo ngi lay nuyu bu baax Mbacke Ball dañoo nekk ci ay mbir rek waaye moom sama xarit la sama lépp la lépp lu ma nekk rek moo nga ca jasakallahu xayran